Gris fii la dugg see noonu leen di Gris Bordeaux dugg see seetaan leen mbokk yi waaw mi ngi noonu Cheikh Thierno benn xoolal tànk xoolal tànk bu mu mooy tànk di joram waaw moom la wàccee moom la wàccee waaw teg ko ah, Ah, ah, ah, waa Fass ñëw nañu Mbaye Gueye ñëw na gis nga ko Abass Dioye ñoom ñëpp Gris Bordeaux tam gis nga Gris bi noonu dañu fonk bis bi xoolal Gris waaw waaw dañu fonk bis bi ñaari écurie waaw mais bis bi li muy rëy yëpp bar baroom la nuru waaw Pape Maye la ngi ci ginnaaw Pape Maye bis bi nuru mi ngi ànd ak Aliou Bara Sall bu ànd ñoom ay da ñoom ay da Diop dar ko ay jigéenam waaw waaw mi ngi ànd ak la sama ma Diop góor a daan def def nga ko oh, Gris Bordeaux ngi noonu suñ li nga yore sotteeku na xoolal bu baax a baax Gris Bordeaux waaw waaw mi ngi noonu la ilaha illallah Aziz te ñoo bàyyi reporté bi te ñibbi du ma ko bàyyi Cheikh Thierno def maa liggéeyloo abdu nañu ñibbi waaw bàyyil Cheikh Thierno bàyyil ma toog nañu dem du ma bàyyil ma toog rek Cheikh Thierno bis bi metti na rëy mais Youssou Ndour na ko sax na toog liggéey ku mu liggéeyloo nga liggéey waaw maa la wax loolu moom mi toog bër ci dem ànd ak Daouda Niang ca Tëngéej les assises de Rufisque ñu ngi leen di nuyu di leen nuyu bu baax ak mu Ndiaye Cissé taxawal waa Tëngéej yëpp liggéey loolu leen ñu ànd indi li nga xam ne moom la ñu war a seet ci li jëmale Tëngéej kanam la koy métti te ñu wax ko ñu sur ànd bis conseiller toog ak waa Tëngéej waxtaan ak ñoom ñi leen bind fi loo xam ne bu ëllëgee bu amee conseil des ministres centralisé Tëngéej ñëw ak document daaw dañaa sama mag maa koy nuyu bu baax baay Abdou bu ñu sori ma ak mu Njaay Cissé gis naa fa ñoom bu mu Njaay Cissé ñoom ñëpp ñëw nañu ah ñu sunduur la famille. la tudd. waaw. bu guddee ci kaw garab yi lay fanaan. ci gën a ci garab mbaa du ci mbaa du ci guy. ci garabu ci garabu supp lay fanaan bu guddee. a guy ak daxaar. waaw ci la gaa yaa gën. laa ilaaha illallah. Gris Bordeaux ngi noonu dugg si na. mbaa du fanaan ci radd. waaw déedéet ci supp lay fanaan. mbay gee mbay gee ngi noonu.